asalaamaaleykum wa rahmatullah madame la ministre maa ngi lay nuyu nuyu tamit euh, messieurs les ministre monsieur le président chers collègues députés maire collègues de la presse euh, madame la ministre ñu bëree bëri dañu jaar fii wax say compétence ak sa mbaax vous étiez mon avocat dégg nañ ko fi gérel nga ñu gérel nga ñu foofu noonu rek laay ñëwaat man loi bi ni ñu ko am amnistie bi dafa am foo xam ne dañ faa yegg rek dugal ne képp koo xam ne pertoon nga say droits civiques ak politique di kër ko trouver looloo def loi bi benn fourre lépp nekk ci biir te foofu la problème bi commencé les manifestations du mois de mars 2021 j'étais à la radio et à la télé doon def direct janvier 2022 ma nekk maire 17 juin 2022 j'ai été arrêté et emprisonné Guédiawaye nag le 31 juillet ma nekk député le 6 mars 2024 ñu wooñu fii ne ñëw leen ñu voté ab loi d'amnistie monsieur le madame la ministre dafa am ay ministre yoo xam ne ak ay procureur yu jàkkaarloo woon ak taskatu xabaar yi am ay kàddu yoo xam ne dañ ko fee yëkkati wax ko fi réew mi dem nañ ba toll benn instant bu ne ku nekk yaa ngay daw di wuti foo dugg parce que état du caaxante état du yëfu xale su ay ministre de l'intérieur wala de la justice wala ay procureur dem ba xamal ñu ne am na ay nit ñoo xam ne rax nañ ñu ay forces occultes ay forces spéciales ay rebelles ay terroristes et cetera et ñu ngi fii ci biir réew mi ñëpp reculer ne bàyyi leen xel ñii parce que état du waxoon tout balaa ñoo voté loi ne dañuy seetal kii wala kii. war nañoo xam ñooñee nga xam ne ñooñu raxoon anañu cher collègues député yéen ñi bokk Benno Bokk Yaakaar di waa APR ñii féete fii ñu jàppee woon leen ay terroriste jàppee woon leen ay rebelle jàppee woon leen jàppee woon leen tey dafa mel ni yéen bi ngeen di ñëwee tey dangeen waroon changer place ñii ñëw nii yéen ngeen dem ne je veux être constant sama kàdduy démb bokk ak kàddu yi tey loolu la sëñ Abdoulaye waxoon képp koo xam ni say kàddu démb dafa safaanoo ak say kàddu yi tey baal mu dem koo xam ne nag say kàddu yi démb ak say kàddu yi tey ñoo bokk kooku mën ngeen a ànd lu jëm nag ci wàllum loi bii man de duma ko voté avant ñu fee ñëw laa ko wax duma ko voté tey duma ko voté ëllëg parce que géejawaay dafa nekk victime am na benn doomu aadama boo xam ne barki démboo njaay la génn maa moom ñoo bokkoñ am nañu Papis am nañu euh, Mouhamed am nañu doomu procureur Alioune Ndao am nañu ay saccage am nañu am nañu am nañu am nañu ñoo xam ne doomu aadama yoo xam ne ay victime lañ ba fii may wax ak yéen ñii daw nañ am nañ benn am nañ ñin ba am maire boo xam ne dafa gàddaay di maire golf barki démboo njaay lay doog a ñëw am nañ ñeneen ñoo xam ne daw nañu ñu bëgg xëy benn jour rek wax ñëpp ne li xewoon yëpp teg leen ci suuf ñu ñëw ci wàllum jomaay ak Sonko mi nga xam ne foofu ngeen roof galgal pour nous mettre en mal ak population mais jomaay conseil constitutionnel libéré na ko le mu ne ko candidat nga mooy da set Ousmane Sonko li ko bàyyi kaso benn portable la portable loolu mooy wane ne kon affaire yi mbirum caaxaan la parce que bu lay wàllum sursis ba duggul kaso. bu dee wàllum affaire aji saar loolu nag moom contumace ba dindi na bàyyi leen nit ñi ñu dem ñibbi seeni kër waaye loi bi mënuñu ko voté lu mooy lépp dafa leer lu jëm nag ci wàllum réconciliation nationale ñun ay jullit lañ loolu la ñëpp wax président El Hadj Malick man moom laa àndal président El Hadj Malick bis bu yàlla dogalee mu ñëw jël réew mii sénégalais yëpp seede nañ ne nit ku dal la nit ku yaru la nit ku baax la. nit ku mën a jubóori nit ñi dañuy dem ba di ko tuumaal ne kii nekkul politicien loolu nag moo ñi nekk suñuy kaddu loi bi